message bi d'abord mooy ñu booloo nekk benn mu bañ am tendance nii jaxaaw nii caali ñu ñëpp ñu nekk benn loolu mooy message bi et ensuite bu loolu wéyee il faut ñu ñu dem si kër yi seeti nit ñi ñu amul carte d'identité ñu wuta leen carte d'identité ñu mën leen inscrire sur les listes électorales l'unité et l'inscription des notifications di militants qui pas de carte ñoo xam ne amuñu carte d'identité amuñu carte d'électeur ñu ñu ko am. non fu ñu nekk teg nañu benn programme boo xam ni fukki fan juróom yu nekk daañu gisante waxante waxtaan waaw et dana am comité boo xam ni comité de veille. boo xam ni euh, juddu na comité boobu mooy dox liggéey boobu yëpp identification des militants non titulaires de carte d'identité et de carte d'électeur waaw loolu tam ay tawat la tawat euh, pour courant bi déjà def nañ si ay jéego koñ yoo xam ne amul am amuloon euh, courant amul euh, électricité daa fi indi fii si fan yu néew bu loolu passé tali bii di dem cimetière di yóbbu ah yóbbu néew yi bu tawe bu nawet ñëwee pour yóbbu néew day indi problème kooku tam ñëw nañu ba saafara ko euh, fii ak fan liggéey bi dana commencé incha allah léegi tam am na branchement sociaux programme boo wax xam ni président de la République moo ko moo ko taxawal pour ñu branchement sociaux pour ñu amul ndox ñu indi leen ndox ñoo ngi commencé di jël kayit yi kayit yi di jël les dossiers pour mën a yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu.

ñun ñëpp ay sénégalais lañu dëkk si réew mi bëgg réew mi te pour liggéey réew mi il faut que ñëpp ànd nekk benn dana metti dana nekk loo xam ni ce sera difficile mais peut-être un jour viendra où on pourra rassembler tout le monde donc euh, démarche bi président de la République di def est une démarche salutaire je pense que ñu euh, politiciens yi yu am xel ñoom ñëw nañu euh, waxtaan ak moom de même que les religieux et la société civile et tout cela voilà pour daal ñu mën a ànd nekk benn pour defar réew mi waaw.